أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf carreau ay carreau espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf carreau li ci gën a neex mooy Taïf carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf carreau nee maanaa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau niveau de wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànce fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77

dañu ñëwaat ci beneen combat boo xamante ni combat capital la tamit combat boo xamante ni combat de déclenchement la muy si diggante ki nga xamante ni mooy Pam Doy ak Thiat Daouda gis nañ boobu combat Fouta production moo fa jaar le premier juin incha ci arène nationale boobu làmb coach xam naa ne di sawar pour wax ci làmb jooju. boobu làmb man combat boobu damaa neex parce xam nga boobu mu tax mu neex. ñaari xale yi dañoo coriace Pape Ndoye jàpp na ku taxaw moo la man te bërëm dafa agressif Pape Ndoye day xeex day bëre waaye doomu doomu caat daaw dafal daa war a moytu xeex bi dem teel a bëre ji caat daaw dafal daa war a moytu xeex bi dem bëre ji daa daa Pape Ndoye daa war a xeex ba mu saf parce que nga mbërëntaan soo ko bàyyee muy xaas dalay boo xoolee caat daaw dafaal ak mbër mi dëkk caar yu géej tarkindaa boobu xam lu mu tuddati te Coly Faye gis dafa indi utiliser xeexam booy utiliser bërëm parce que moom bëri la mën mu bàyyi ko xeex bi mm-hmm. kuy dal mu jàpp bëri daan mais combat bi daa taxaw ñu si bëri ne Thiatou Daouda Fall moo ngi door a am làmb. yow Thiatou Daouda Fall mu ngi doog a am am la rek. nit ñi xam nga nit ñi loolu la ñuy waxee rek. nit ñi loolu la ñuy waxee. waaye li am solo mooy tey Thiatou Daouda Fall na na na na wu ci ci xeex bëre bi. na moytu te indi song mu mu xeexee. Pam dooy kenn du wax mën xëy mën a xeexam. Pam dooy benn defer la fa am bu ko dóoree mu kaawoo. moom Jackson moom moog Jackson. te Jackson du ñeexum ñebbe. ok Jackson daa paas ñëw de ku fi lekk awaasam bu yeboo nga jóg fajar daa lu mu bëgg. moytu ma mbërum paas ñëw. mais mais mais mais Thiat euh, ndax euh, ki nga xamante ne mooy Pape Ndoye war na euh, bëre ki nga xamante ne mooy Thiat Daouda Fall. non Pape Ndoye dafa xaw a tardé ci làmb na ah parce que Pape Ndoye moo njëkk a départ Thiat Law Thiat Daouda Fall. waaw xam nga làmb cinq ans de carrière wala dix ans de carrière agoo benn niveau bi da ngay dem ba dootoo bañ dara. parce que am na loo xam boo ko bañee doo am xaalis. non combat bi laa wax ndax war na bëre ak moom ñëw jàppante. non de man de bu ma indiwoon Pape Ndoye damay xeex. damay ñëw toog samay tànk. fermer sama garde déglu booy bi fu mu yëngoo ma toj nopp bi. fu mu yëngoo ma toj nopp bi. mais mais mënu ko sonal si si bëri. parce que Thiatou Daouda lay teg Pape Ndoye teg gauche damay admet sama gauche fu mu ne bërët ma ñam ma laal bët bi bu nee mën naa nekk Thiatou Daouda Fall dafa war a charger Pape Ndoye ne ko far force dama lay jàpp dama lay daan. mais ndax actuel la war a bëre moom moom Pape Ndoye si digg muy digg muy saako yeeg fépp Pape Ndoye daa war a xeex pam doy mën na bëre mën na xeex. léegi nag de booy bëri mbërëntaan ku caatu daaw dafa am mbër kaamil la champion la mu ngi màgg ci doole te mën naa xeex mën na mën naa bëre uh-huh. xeex bi am tuuti erreur rek te diggante bi nii mën na ko jooyanti waaye li gën a wóor mooy Pape Ndoye dafa war a agressé caatu daaw dafa su ko doole ñoom ñaar non xam nga nag man gisuma Pape Ndoye lu bëri mm-hmm. gisuma caatu daaw dafa lu bëri duma xam seen état de forme waaye lii làmb laaj daal ma la xamal ah. caatu daaw dafa daa moytu xeex bi pam Ndoye daa war a xeex mais japp nga ni eh, bu arbitre sifflé chat eh, dina dox ci kaw ki nga xamanteni moy chat eh, Pape Ndoye. la looy lamb ji. ma yaakaar ne Pape Ndoye moo war dox. dedet gis nga boobu gis nga yow yi mënta xex hmm. yaay teel a jege ji. ok rapproché. tel rapproché tel ko japp tel ko xaji bëreeg mom ba bëre bëre bu sew. loolu mo dal mbeur bi ko wens ak Alioune sey 2 biñ ko koy wax fii. ok Alioune Seye 2 teel jappi ki ko wens mu taxaw rek ba jël ko rek mars war nelaw bo boo mënta bo boo xam nga ban mbër moo mo sonn ci àdduna. mooy mënoo yéeg mënoo bës ku daanu. kooku doo mbër. mooy mbër mu mënta xeex mënoo moytu mënoo bëri loo mën. kon da nga jàpp ni combat à distance boobaa de arrangé Pape Ndoye. ko ah Pape dafa def à distance. ok Pape Ndoye dafa war a xeexloo booy ba pare doo ko bëri. waaye ba pare wàññi maanaam xeex bi moo koy wàññi. parce que caatu daaw dafa la bërekat la te bëre bi dafa mok da am na ndoxtu. bu PAM doy bu dalé chat euh, nak mënul yàq làmb. baña a sa way kur ba ñu maasuwaar. corée sa corée ak épercule. da yàq combat. bo xolé saison bi ñu génnee ñi fi jël corée droite fuñ fuñ jaaw fuñ jëm. comme sondel bu fay. corée droite baaxul. mbeur mu mën moytu da nga moytu corée droite ak épercule. kuñ ko dóor sa lamb ya ki nga xamantene dafa gaaw ci lamb ji. moy kan moy ki nga xamantene ñom ñoom ñaari mbër ki gëna gaaw. xam nga léegi xam nga léegi lamb ñu la ko mëna apporter. xam nga lamb léegi kuñ jox avance do entraîner yow bëggoo lu baax. ok mbeur muy jël avance do entraîner yene wo sa papa yene wo sa yaay yene wo say mbokk yene wo say xarit. parce que million melal ñi la tudd. ok ñaar mbeur fi yorul 4-4. ñaar mbeur ñoo fi yorul 4-4. bari na ñi dawal ay T-Max di ko doxantu. Mhm. teel a koy maye. teel rek am li nga bëgg xam nga neewoon naa la Eumeu Sène toppul pari foot bi. ok mbër bu fi topp pari foot bi fii doo dem fenn. mais combat bi bu gaawee. avantage kan la. non si ñoom ñaar ñëpp. Hmm. waaw parce que Fass jamono bi ñu toll nii tamit dañoo toll woon ci ginnaaw ay ay difficulté. Hmm. bañ ko ñàkkee lañ torox. léegi loolu la ñuy indiwaat. allah mais euh, ki nga xamante ni mooy. Euh, Eh, ki eh, Jackson. Birima xam nga ko Birima. Jackson men. Birima xam nga Birima. kuy Birima. mom mom lañ nane Jackson. Magicien du jor waaw mi jóge côté sa bokkal yi côté waalo yi. deggu déggoo la Jackson da pass ñew du caaxaane lamb moy tur ma mbër mu paas ñëw. <laughs> mbër mu paas ñëw. mbër mu paas ñëw moytul ma ba ab sac la indi. nga jek jek yorub 4-4 ma nga yorub 3 max moy tur ma mbeur momu day xam bopam day xam liko taxajuk sun du jaaxal lamb de. mais fi duggu ci Lac Rose. waaw du danser du danser dansé. Ah, ko ci yaay wax lu graw de. combat bobu moom sa koñ sa taaki sa gañ lay di nga gañ di nga attaqué do gagné lay di nga di nga di nga avancer do koñ do ko kenn di attaqué sa koñ da gañ. waaw bu sax jour lay nek de. mënu ko def boy chaque jour du aljuma de chaque jour du samedi chaque jour du dimanche. mais kéro gisunu mu bëri fi sa bal. bokul de. lu leen différence xam nga yoo xam ne. Ah. mat laa bu tooy lañu. dafa am mbër yoo xamante ne. mat laa bu tooy mat laa bu tooy. lambu moo bëri mbër mbër yu mat mbër yoo xam ay mat laa yu tooy lañ. xam nga loolu mooy ñu mu nii rek. mat laa bu tooy booy laal muy siip rek. ok maanaam euh, Fils de Balla. li war a nekk ci moom dëgg dëgg dëgg bu nekkoon ci moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. taxaw ak Lac Rose si biir mais keroog na de moom lañ dóor mu corrigé mu kaawte tey Lac Rose dafa bett sénégalais ci combat boobu noonu. kon boobu nice Lac Rose. waaw xam nga Lac ñëw na ci contre euh, nu mu tudd. Coens. Euh, waaw mu tenir Coens. duma ko fa duma métti. Coens daan ko ba mu demee toogul daa continuer. ok liggéey. wéy li liggéey bi ba mu ñëwaatee contre euh, nu mu tudd contre. waaw ah, kii fils de Balla la loolu confirmé te bu fekkee tam lam lam yoroon la continué wat day gën a baax waaye combat boobu ñaari xeexkat lañu te ñaari garde normal lañu xanaa amoon ne bu lagro suulee Jackson suul ñu xeex kaaw mën na fa am bëree ñoom ñaar dañuy xeex balaa ñëw songante nga jàpp ne dañuy laalante far force dañuy dóorante lagros kenn du ko songee noonu noonu noonu noonu Jackson kenn du ko songee noonu noonu noonu noonu. mais xeex bi euh, Jackson di xeex ndax arrangé na la. ñoom ñaar ñëpp dañuy xeex ay bagarkat lañu ay ay borom fit lañu ay borom jom boo xoolee ñaq jariñ fi mu jaar ak waa ji eh, Jackson nga xool Pape Ndoye fi mu jaar ak Jackson nga xool nga xool ñoom Moussa Ndoye nga xool ñee niñ fi ñu jaar ak ak Lagrosse gars yi fàtt naa sax yenn mbër yi fi ñu jaar ak Lagrosse di nga xam Lagrosse mi telef telef moo ko topp ay mbër la. Lagrosse daan fi ay Mame Balla daan fi mbëri bari Anta di leen a duuma doog leen a daan. mais fi mu jaar ki nga xamante ne mooy Pape Ndoye moom Jackson. waaw ah. ndax mun na faa jaar mag. Pape Ndoye fi mu jaar ak Jackson. moom Jackson fu mu jaar ak Pape ah. ndax mun na faa jaar ak magu Pape Ndoye Lagrosse. liggéey moo koy maye. kaaw liggéey moo koy maye. Lagrosse mis mis miskul euh, kii Pape nu mu tudd saxati Jackson. Jackson muscle court la gàttul njool dafa mën xeexu benn benn dafa mën xeexu jóob joxal njaay tey maanaam papa Jackson dafa war a jege Lac Rose pour lim pour li mu bëgg mën koo am il faut mu jege Lac Rose tuuse ko dugg ci garde bi. mais li mu indi contre euh, soq moom Jackson. ndax cette fois ci moom la war a indiwaat ci diggante mag. non bul bu duñu comparé combat yooyu. combat boobu jël bi ken kenn mënut wax kenn mun luy boobu extraordinaire. mais nu yàlla man mii damaa man xaw ma ba tey comprendre ma daw na song waaj dóor tànk mu génn fi tër ñu ko loolu nag oyof fa koy maye ak mën a bëre. parce que Jackson gaaw na mum na yaram te mën na bëre mën na xeex te ñeme na Lac Rose kenn mën naa daa ragal Lac Rose ñii ñii borom fit yi mooy seen patron. Lac Rose waaw gaañ dala di. tolof tolof moo ñëw rek waaye ñoom ñaar tey Lac Rose dafa may war a may Pape Ndoye distance kii Jackson distance parce que moo gën a gudd ay loxo di ko jam di daw Lac euh, Lac Rose bu taxawee suul Jackson suul Jackson ñuuxu ko bu ñu xeexee problème bu ñu xeexee kaaw dina am. bu ñu jàppante ñoom ñaar. ah dañuy bëre. avantage kal ñoom ñaar ñëpp parce que Lac Rose day zongale day jaxabal kii nag moom Jackson dafa naqaree kalkin ci biir géew. zongale yooyu muy def mën ah, waaw waaw. doole nga lu gën a garaaw ci làmb. nit la mu foore. bu mu la ko def. day matte bul dugal sa baaraam. waaw day matte daal bul dugal sa baaraam. bi euh, Jackson nan la ko war a aborder. xeex grand bi bu mu may mu xalaat. Mm-hmm. grand bi da ko war a jox lépp. man maa bëggul sax man si làmb chaque jour ma wax ko ma mag la ci at. njëkk laa bëre arbitre suuf la ma lay imposer doole walla fit dama lay jox lépp nga juum ma corriger ñibbi mooy li ëmb seen def barki dem sa Thiès da koo jox lépp tëj fépp toog di ko seetaan. kon daal moo la déggee euh, Jackson bu arbitre suuf lee daa war a dox ci Jackson moo war a bë moo a diriger bëre bi moo war a diriger xeex bi. moo war a song yi. mais lu mu fa bu fay fekk. déedéet daa war a war a xeex ak waa ji pour mun a pour Jackson pour mu daan Lac Rose. mu xeex moom. day da koy tuusaloo ba Jackson jóg ba ba Lac Pape ba Lac Rose jóg mu doog mën a jaar ci flanc waaye bu Lac Rose tey bu Jackson jàppee Lac Rose jàpp foofu dañuy naxante. bëri bi day compliqué xam bëri bëri boo jàppee ma jàpp rek bëri soof. soof mooy nga jàpp ndengeñ ma jàpp ndengeñ ngay buux may buux coono lay yokk. du am bunt de du bunt. waaye ci biir xeex ci la bëri di ci la bëri di amee. il faut moo tax xeex bëri xeex day ubbi bëri. waaye ci biir xeex fa la bëri di amee. Lac Rose la war a recevoir ki nga xamante ne mooy Jackson. déglu ko jox ko lépp may mag Lac Rose war war waru arbitre waru na piri moo dem gëdd booy bi. déedéet daa war a jox lépp booy bi. bu ko bi mu mu daw dëbb col dugal uppercut jéem a toog ci tànkam ak rasu pour jumloo booy bi